أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey noo ngi ànd ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ci kàttanu borom bi ñoo ngi suratu an'am ba tey ñuy jël tey juróomi aaya aaya 25 26 27 28 29 juróomi aaya yi nekk sunu kanam sunu boroom subhanahu wa taala mu ngi ni ciy jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy bayaan sunnatullahi taala fi anna al abda ida kariha ahad aw bi ghadabi wa taghala fi dhalika yusbihu la yasma'u ma yaqulu lah wa la yafhamu ma'na ma yasma'u minhu mbokk jullit yi bokk na ci li ñuy jàng tey sunu borom moo ñuy leeralal ci doxalinam ci jaam ñi aw yoonam wu mu tëral aw doxalinam woo xam ne moom la doxal ci kaw jaam ñi léeg-léeg nga gis ci jaam ñi koo xam ne su bañee benn nit walla mu mere ko mer bi dem ba jéggi dayo walla mbañe mbañeel gi dem ba jéggi dayo moom waajooju dafay mujj ki mu bañ bu waxee du ko dégg waaw du ko déglu mukk benn yoon waaye sax du jéem a comprendre li ko kooku di wax du ko jéem a sax déglu walla mu dëngal benn nangu lenn lu baa waa ji lu baax lu mu def loolu da ngeen koy gis tey ci melokaanu yéeféer yi sunu borom di leen melal di wax ne ba nu lànkalee ba ñu ko lànkalee moom yàlla dëddu ab yonentam déglootuñu lenn luy njubeel luy jub lu jógee ci yonent bi wala lu jógee ci borom bi tabaraka wa taala moo tax nit sooy bañ bañal ndànk waaye booy bëgg bañal bëggal ndànk doomu aadama waroo bañ nit ba egg ci fond bi wala nga mere ko ba egg ci njombaxtal bi léeg-léeg nga dégg ku ne man diw rek laa bañ mais léeg-léeg nga dégg ku ne man kii su ma naree waxateeg moom jaara na ma bàyyi islaam waaw loolu ab jullit du ko def loo mer mer mer mer mer sa mer war na am fu mu yem waaye looy bañ bañ bañ bañ sa mbañeel war na am fu mu yem moo tax mu ne annal abda jaam bi isa kariha ahad su sibee kenn wala mu bañ ko aw abghadahu wala mu bañ ko mu dem ci loolu nag yusbihu la yasma ma yaqulu la dootul nangu ñu koy wax dara wala ñu ko koy expliquer non non dootul déglu waaye wala yafham ma maana maa yasmau minhu dootul déglu sax benn xalaat bu baax bu jógee ci waajooju wala ci mbir moomu ñu koy wax loolu ab jullit waru ko def mbokk yi ñaareel bu ñuy jàng tey mooy charru duaati charri man yuridu anil huda wa yaamuru bil iraadi anhu wa yanha man yaqbalu alayhi tey bokk na ci li ñuy jàng ñi gën a bon ci wootekat yi mooy wootekat buy woo nit ñi pour ñu bàyyi dëgg dem ci caaxaan kooku moo gën a yées ci wootekat yi te xam ngeen ne loolu tey suñu jamono bii nu nekk ku ne gis nga ko wala dégg nga ko wala sax message yi egsi na ci yow ci ay nit yoo xam ne ñu ngi ci rajo yi ñu ngi ci télé yi ñu ngi ci internet bi ñu ngi ci partout di tasaare ak mbon di tasaare ay bida ak ay bokkaale di tasaare ak njabar di tasaare ak caay-caay ba pare di ko solal mbubu diine waaye li ci gën a yées nit ñi jàpp ne ñooñu ay waxkatu lislaam lañ fekk dañuy baare nit ñi pour duñu jël njubal yàlla ak njubal sayduna muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye duñ ci yem waaye wa yaamuru bil iraadi anhu dañuy digal nit ñi nañu dummóoyu dëgg dañuy gis ne dëgg ngi nii waaye ñu baare ko ba doomu aadama yi dëgg googu duñ ko mën a jël waaw tudde ko tiital ci nit ñi xupp leen ci wala askane leen wala wala wala ba nit ñi ragal jël mbir moomu waaye yem am na ci ñoo xam ne duñ yem ci lool sax wa yanha man yaqbalu alayhi dañuy tere sax nag am nañ ñoo xam ne jaral na leen yor seeni yar seeni karwaas seeni seeni seeni waaw ba ma gis la fa ba ma dégg la fa ba nga dem fa mu jaral leen lu nekk léeg-léeg nga di gis ndeysaan mbokk boo xam ne tey fi ma nekkoon dañ ma ne borom kër gi taawam dafa tuub mu génne ko kër gi nga gis ne loolu tey bëri na trop ci dëkk bi waxuma sax ñooñu nga xam ne ay yéeféer lañ dañuy tuub waaye da ngay gis ab jullit bu jël dëgg ñu ne ko yaa ngi moom du fii kon mbokki jullit yi danañ jàng tey wootekat yi gën a yées ci àdduna mooy wootekat yi woo nit ñi ci caaxaan pour ñu bàyyi dëgg yàlla yemuñ ci waaye ñuy digal nit ñi nañu dummóoyu njub loolu yemuñ ci waaye ñuy tere bu ko kenn jël ñetteel bi mooy sababu shirki fil ard al kufru billah wa inkaaru al baath wal jaza al axira danañ jàng tey li tax bokkaale yàlla tasaaroo waaw sababu shar fil ard sababu shar fil ard sabab bi tax mbon tasaaroo ci kaw suuf mbokk jullit bu ñu leen doon laaj benn laaj ñu ne leen lan moo tax mbon tasaaroo ci kaw suuf tontu bi mooy lan mooy alkufru billah nit ñi dañoo weddi yàlla loolu kese la nit ñi bi ñu weddee yàlla ci la mbon tasaaroo ci kaw suuf suñu gëmoon yàlla kon mbon du tasaaroo bokk na ci li tax aussi nit ñi tasaare mbon ci kaw suuf li tax mbon tasaaroo bokk na ci inkaarul baas mooy nit ñi dañoo weddi dékki foo gis kuy def lu bon gëmul dékki ndax boo gëmee dékki boo dekkee yàlla daf lay fay li nga doon def doo ko def bokk na ci sax tey àddina bi lëndëm mbon gi bari rey gi bari sàcc gi bari njaaloo gi bari mooy nit ñi koy def gëmuñu dékki loolu bokk na ci muy ñaar ñetteel bi gëmuñu fay ne yàlla dana fay àllaaxira ah chaque jour nga dégg in hiya illa xayaatuna dunya namuutu wa nahya wa maa yuhlikuna illa dëhër dañuy dund rek bu ñu dee jeex na dara du xew ginnaaw bu ñu deewee est-ce que bu ñu deewee yàlla mënuñu defaraat ay ah di ngeen di wax rek alaaxira ndeysaan benn waaye neen alaaxira nda yàlla naan dekk leen ñëpp dekki rek mu ne nax naa leen benn lee dugg leen àjjana nekk sa waay ni nga ko waxee neex na de mu ne loolooy am lu foo ko teg mu ne doomu aadama mooy sirru muhammad yàlla du lakk turu muhammad ne doomu aadama ni ko yàlla bindee bopp bi mooy miim gi biir beeg dënn bi mooy ginnaaw gi mooy xaag ndigg li ma tooguwaay bi fi muy toog mooy beneen miim bi tànk yi ni mu def nii nee na mooy deel bi waaw yooyu yooyu la nit ñi di maye yooyu ñooy seen gàllankoor yooyu la ñuy bind ci kaw du ngeen dem armeel yi du ngeen gis ñu ko ci bind yéen ci armeel nga gis ni ñu suulee néew bi ñu bind ko ci noonu bind bu gudd ba ci tànk yi waaw lépp ay caaxaan la dara wéru ci dara du ci diine doomu aadama daal bu bañee yàlla jëflanteeg moom na jaamu yàlla sabab bi tax mbon tasaaroo sababu char fil ard mooy al kufru billah wa inkaarul baas wal jaza al axira sabab daal bi tas mbon tas tey àddina bi yépp mbon walangaan mel ne géej ay waame di dem li ko waral mooy alkufru billah mooy weddi yàlla doomu aadama bu weddee yàlla amatul lum lu mu dul ñemee def day am fit waaw amul lum dul ñemee def lu ñuy yëkkati dina ko def waaye nag rawatina nag ku weddi dekki ku jàpp ne yow doo dekki ki gëm dekki mooy jubal mooy lekk lu dagan mooy wuy woote yàlla mooy jubal li ko yàlla sant waaw gëm ne dana dekki te bu dekkee yàlla dina ko fay moo tax dafay jubal man kaana yarju liqaa rabbihi falyamal amalan saalix kon gis nga gëm gi mu gëm ne day dekki day dajeek boroomam loolu moo tax muy jëf-jëf ju baax kon doomu ndey yi loolu mooy sunuy aayata yoo xam ne moom la ñuy jël ci suura al an'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنون بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقولون يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينعون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين sunu borom ne jalla jalaaluhu wa minhum am na ci doomu aadama yi aaya yi dañul dañu nettali ci gaa yooyu nga xam ne ñooy dendale seen boroom di ko bokkaale ak leneen lu dul moom sunu borom di ñu xabaar mu ne am na ci ñooñu fa minhum am na ci ñooñu bokkaalekat yooyu ñooñu nga xam ne ñooy dendale seen boroom ak leneen wala keneen man koo xam ne yastamiu ilayk daf lay déglu waaw jamono ji ngay jàng alquran ah day toog di déglu wala mu taxaw di déglu wala mu jegele di déglu walakinahu la yayi tey toog ni ne xujj xujjaaral ngay wax muy déglu nga yaakaar ne dégg la ndeke ngelaw li dafa romb daal di dem wala mu dugg ci nopp ndeyjoor génn ci nopp càmmoñ déggul dara déggul laa yaay qalbahu lu tax ndax xol bi moo dul jël du comprendre li nekk ci alquran ci ay atte ci ay njàngaleen ci ay secret ah dara day ñëw rek ne xujj xujjaaral di la xool ngay jàng alxuraan muy xool xool la xool la nga yaakaar ne mi ngi dégg nga yaakaar ne gëm na li ngay wax nga yaakaar ne nangu na ko nga wax ba pare rek mu ne la saa yi waxoo fi dara waaw xam ngeen ne bi yàlla di wax lii ñu bari ci ñun dañ yaakaar ne yéeféeri màkka yi la waaye da nga koy gis tey biir Sénégal waaw nga wax nit aaya alxuraan yàlla nee la mu ne la ah waaye ngay wax rek waaw ngay wax rek waaw bu ko yàlla waxee nag waaye nag diw li mu wax nag wala kële li mu wax nag wala léegi nu ñuy def lee nag wala léegi yéen lan ngeen bëgg mooy kon déggul li nga ko wax ndax ab jullit bu ñu ko nee yàlla nee na doy na wala yàlla nee na doyul kuñ ne yàlla nee na loolu doyul dara dootu la doyati moo tax nga wax alxuraan bi ba pare borom bi nee na am na ci ñoom ñoo xam ne wa minhum man yastamiu ilayk am na ñoo xam ne dañ lay déglu jamono ji ngay jàng wala ngay wax alxuraan bi waaye comprendre ñu ko dégguñu li ci nekk waaw déedéet nanguwuñu àtte yi léegi nag mbokk yi su yàlla waxee li yàlla wax waa ji nanguwu ko lan moo tax xam ngeen lu tax waa ji nanguwul sunu borom nee na wa jaalna man yàlla maay ki def ala qulubihim ci seen xol yi ak kenn ay kubéer maa kaste xol yi dan lañ ci yàlla musal lan moo tax ñi yàlla kaste seen xol ba bi ñu waxee ñoom lenn alxuraan ni mu nekkee leer ak alxuraan ni muy pénétrer nopp yi di dugg ci dënn yi di dugg ci biir xol yi ñii ñu wax ak ñoom ñu ne këcc këccaaral mel ne ay doj waaw lu waral yàlla kaste seen xol yi loolu ñun ñëpp ñun ñoo ko war a laaj lu tax ndax dañoo xam dëgg ki xam dëgg lànk ne du ko jël signe bi mooy yàlla moo kaste xolam wa dalika lamma jaalna xasba sunnatina fi xalqina man yàlla ba ma defee ca sama doxalin samaw tëralin ci doomu aadama yi mooy képp koo xam ne gëmuma damay kaste sa xol waaw doo déglu mukk du jaar ci nopp yi du jaar ci dënn yi fa lisahum yastamiuuna wala yasmaun dañuy toog déglu mais duñ dégg affaire yi day romb vir du dugg ci tempaan yi wala yafqahuuna duñu comprendre lu tax ndax nopp yi la ñu saañ yéen a ngi fàttaliku sahaaba ba muy tufayl ibnu amr ba muy dem màkk bokk na ci li ko waa màkka wax xam nga jamono bi yonent bi di woote lislaam dañ doon yàq islaam ci ay information comme tey niñ koy tasee ci information yi waaye xam ngeen ni waa màkk amuñu woon ay rajo amuñu woon ay télé amuñu woon amuñu woon nan lañ def dañoo jël ay nit tas leen ci yoon yi xam ngeen dëkk bu nekk booy dugg am na yoon ñu taxawloo fa nit soo doxee ba yegsi ñu ne la foo jëm nga ni man Kaaba ga laa jëm mag ñu ne la d'accord waaye nag boo demee am na fa benn xale mu ngi bokk kër Abdul Muttalib soo demee na nga ko moytandiku ndax dafa indi diine bu bees tàqale na dëkk bi yëpp jëkkër ak jabar baay ak doom mbokk ak mbokkam mooy tëndikul de moo tax ku ne tëll màkk seen ko rek daal di jaar beneen yoon ku ne tëll màkk seen ko yonent bi di waaraate ñu dem beneen yoon waa ji di tufayl ibnu amr moom bi mu ñëwee ñu wax ko loolu mu départ moom yemul ci gis yonent bi changé yoon wi waaye ba mu demee dalam bay dem kaaba ga mu xam ne bu fa demee kooku ñu ko doon wax moytu leen ko ma nga fa lan la def daa dem jënd ay witteen sànc ñaari nopp yi ba mu ne keng pour lan pour su ñëwee bu fekkee ne fekk na fa waaja su waaji di wax sax du dégg li muy wax mu neex yàlla tu fay lu dugg ci mag ñëw di wër si kaaba gi kaaba gi yéefari dañ ko daan wër mu seen yonent bi taxaw su defee benn tuur ba yegg si côté bi yonent bi nekk yàlla jël alxuraan ji laxas ko ci ngelaw li daal di koy dóor ci witeen yi mu dugg ci nopp yi romb witeen yi ne sarax ci xol bi xam ngeen ne witeen mënut a téye kàddu yàlla witeen tuuti na ci mu jékki-jékki rek mu daal di dindi witeen yi sànni rocc ci witeen yi sànni ñu ne ko lii lan la mu ne fa kayfa uiru aqli xëyri naka laay abalee sama xel keneen lan mooy abale sa xel naka la nit di abalee xelam ah Sénégal ñëpp dañoo abale seen xel xam nga lu tax ma leen leen wax ñu gëm rek ñu gëm ko da nga dee benn waaye mu ne la sa waay soo demee génneel sarax yoo am na lu nekk ci yow nga dem rek ne sa yaay benn paa ma dajale nee na ma génne sarax rek nga génne mooy da nga abale sa xel beneen mooy da nga gis nit ñi di ñaan mbedd mi nga gis nit ñi di ñaan rek ñëpp taxaw nangu leen ñaan oto yi gaare mobile yi gaare ñu doon dem marché dañoo abale seen xel waa ji li muy ñaan est-ce que yow loolu nga bëgg bu la waa ji yàlla naa dee nag ngeen naan amin waaw loolu xam nga waaw mu nga kon nit ñi est-ce que li waa ji di ñaan ak li mu ne ñaanal ma yow problème boobu nga am nit ñi dañoo abale seen xel mu ne man nag naka laay abalee sama xel abale sa xel mooy ñu wax ne la nga dégg ko te yow gëstuwoo xa- demoo ci source ba xamoo ne li dëgg la wala du dëgg rek nga gëm fi mu nekk ni Sénégal lu bëri dañ leen wax dañu gëm ko kenn amu ci yaqiin gisoo ko fan da ngay dégg nit ñi wax rek nga gëm fekk du dëgg dëgg mooy lii xam ne da nga cee tiim di ko laal di ko jàng di ko firi di ko dégg adduna bi yëpp di ko wax li mooy dëgg bi waaye dëgg boo xam ne sa waaye ñaari nit ñoo ko xam ñaari nit ah te loolu ku ko def du gaañe ne ñaari nit rek wala yonent bi sax xamu ko Sénégal ngay gis jaamu yàlla boo xam ne ku ko def dugg àjjana te yonent bi xamu ko soo fekkoon Aboubacar Saddiq nga wax ko ko xamu ko soo ko laajoon Umar ak Ousmane dañ naan la ñun de loolu loolu fa nga ni lan la ah ah ñun de loolu jamono bu yonent bi dinu woo ñun xamuñu woon loolu kon mbokk jullit yi jullit du abale xelam mu ne ñii dañoo abale seen xel dañuy xool duñu gis di dégg déglu te duñ dégg lu ma ko waral mooy dañoo lànk li yonent bi indi minat tawxid ci kennal yàlla tabaraka wa taala waaw moo tax alxuraan day wax ak ñoom duñ dégg ndax lan yàlla moo kasta seen xol yi wa jaal naa man yàlla def naa ala qulubihim ci seen xol yi akinna ay kubéer ma kaste ko an yafqahuhu duñ ko dégg mok mok mok mok duñ comprendre lan mooy alquran duñ ko mës a jël lu tax waaw mbir mi fi mu war a jaar buñ ko tëjee ndax dara dina fa jaarati waaw sunu borom subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moo kaste xolu ñi ba duñu comprendre ay duñ ko dégg yamul rek ci kaste seen xol yi waaye wa fi azaanim ci seen dégg yi sax waqaran yàlla moo ko saañ moo ko daaj léegi nag mbokk jullit yi nit ku fekk nopp lan lay jëriñ buñ ko buñ ci saañee ay bant ne ko daaj ko ba mu ne keng sa xol wi ñu tëj ko kooku na ngeen xam jàngeen summun bukmun umyun fahum yaa ngeen ulaayika kala an'am bal hum adal ah inna charra dawaabi inda allah summun bukmun lazina la yaqilun sunu borom nee na ñi gën a bon ci mbindee fi yàlla bind ci dawaab mooy ñoo xam dañu tëx ba pare gumba ba pare amuñu xel lu waral ñii yàlla def leen lii mooy yàlla nee na maa sañ seen nopp yi kaste seen xol yi yàlla yàlla ñu ci yàlla musal ndax ñaar yooyu ay jumtukaay la yoo xam ne jumtukaayu jub la nopp jumtukaayu njub la li lay jubal da nga koy dégg ci sa nopp bi nga ko déggee ci sa nopp mu daal di wàcc ci sa xol nga enregistré ko bi nga ko enregistré nga tëdd guddi xol bi daal di koy jox xel mi band bi commencé daw yaa ngi tëdd mais xel maa ngi koy liir waaw waaw waa ji li mu wax dëgg la de benn waay dafa takkoon gàllaaj béjjën bu rëy mu dajeeg benn waay waa ji ne ko ci jàkk ji seen mbagg yi bombante karaj karaj rek waa ji daj béjjën ñu julli par waa ji ne ko asalaamaaleykum mu ne waaleykum mu ne ko saay loo takk sa mbagg yi mu ne ko lu ci sayoon mu ne ko daa mel ne béjjën nga takk mu ne waaw mu ne xanaa gëmoo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ñaatoon ngay julli taxaw ci kanam yàlla naan ko iyyaka na'budu yow rek laay jaamu wa iyyaka nasta'in yow dong laay sukkandiku ndimbal nga takk béjjén bi waa ji ne maa tey génn dem xam nga wax na lool mu dem tëdd xel mi sawaay xol bi jox xel mi xel mi fi mu tëdd ci kaw lal bi mu jékki-jékki yeewu affaire bi di répété wu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mu ñëw toog fajar mu gàddu téere bi ndekki réseau la béjjén bi la takk fii mais réseau bu ngand bi mu ngi ci ron lal gi Hmm? central bi central bi mu ngi ci ron lal gi waa ji def gars yi dañooy rey central de gis nga souvent ngeen gis mbër yi ñu yor bee jën di ko joxoñaate ah am na am na central xanaa comme ni ñaan micro sans fil micro sans fil soo ko yoree nii di wax kenn du gis buum gi dañ xamuñu fu mu nekk mais est-ce que amul central ah est-ce que amuñu lu ñu roof ci ampli bi wala loo xam ne moom mooy tax micro ah bii jéen yooyu loolu la gars yi ngande fi ngay gis yëpp loolu lañ yor dañ koy def seen rollal xam nga loolu doo ko mun a takk ndax dafa ngande doo ko mun a takk mais nag ñu nga yor bu ndaw bi mun na ci benn waay boo xamante ne béjjén bu ndaw bi mu yor rey na juróom-ñaari nit ku mu xulool bu mu la ko ni nii rek pare nga mu gàddu yëpp nag indil waa ji saaku téere waa ji ne ko lii lan la mu ne ko vraiment dama tëdd du mënuma nelaw ndax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi mu ma wax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bu dëggoo ci nit du takk gàllaaj bu dëggoo ci nit laa wax du takk gàllaaj yàlla yow rek laay jaamu lu muy tekki mooy yow yàlla yaay sama borom yow yàlla man maay sa jaam nangu naa ne yaay sama borom nga nangul ma ne maay sa jaam jeex na su ko defee nag léegi yàlla ngay tàllal loxo moom ngay sukkandiku mooy wa iyyaka nasta'in yow laay sukkandiku ndoo amul keneen amul béjjén amul buum amul amul amul yow yàlla yow laay sukkandiku lu ma soxla duma lem ci kenn ci yow rek moo tax alxuraan bi des ci ñun ñu koy jàng te dégguñu ko li yàlla wax léegi léegi léegi ah ñu ngi koy jàng ci bare bare bare ci ñun waaye dégguñu aaya yi yal na nu yàlla won dëgg mu wërsëgal ñu topp ko wa minhum man yastamiu ilayk waaye wa jaalna ala qulubihim akinna an yafqahu mu ne wa fi aadanihim waqra li gën a doy waar mooy wa in yaraw kulla aaya la yuminuuna biha allahu akbar wa in yaraw suñu gisoon kulla aaya mbooleem kiimtaan aaya buy wane ne yàlla mooy yàlla muhammad yàlla ko yónni alquran waxu yàlla la islaam mooy dëgg hmm? borom bi nee na laa yuminuuna biha duñ ko gëm mukk mukk mukk mukk lii lu ci nit mën wa in yaraw kulla aaya xanaa sax bu yàlla waxoon baadul aaya bu ñu gisoon yenn aaya waaye wa in yaraw kullal aaya bépp aaya buñ ne koo fàng ci seen kanam duñ gëm pourtant aaya yi wane ne yàlla mooy yàlla yonent bi dëgg la yàllaa ko yónni alquran dëgg la islaam mooy dëgg pourtant nee na fàng ci sunu kanam ñun ñëpp bis bu nag ñu teg ci bët wa fi anfusikum afala tubsirun seen bopp rek yàlla nee na ni ma leen bindee inna fi ixtilaafi alsinatikum wa alwaani xoolal nit ñi ni ñu bëree ci àdduna bi gis nga nit ñi ni ñu bëree bëri nañu wala bëri wuñ ah bëri nañu wala bëri wuñ ok kan ngeen ci gis yàlla fàtte ko mu dee du dee da ngay dëkk ci kër ñu fàtte la dooñ wala nga dëkk ci ah ñuy séddale fàtte la wala nga nekk ci dëkk bi ñuy séddale fàtte la kan ngeen gis bi yàlla bindee àddina bi ba léegi léegi ñu ne yàlla koo fàttee rek kii moom dinañ ko fàtte loolu kéemtaan la wala du kéemtaan ah beneen bi xoolal ni yàlla wax ne noonu ngeen di juddoo nekk liir raam dox nekk xale nekk jeune nekk pa après dee mu ngoog xoolal jant bi xoolal asamaan xoolal suuf xoolal biddéew xoolal weer xoolal xoolal aaya yi yàlla indi moo tax sunu borom ne wa in yaraw kullal aaya mbooleem aaye boo ne dang seen kanam kéemtaan borom bi tabaraka wa taala nee na bul sonnal sa bopp ñii laa yuminuuna biha duñ ko gëm te bu benn waay dessin ne rek dessin man damay gis ci yenn saa yi ci journal yi ay tableau yu ñuy jaay ay millions mës ngeen ko gis ah mës ngeen gis tableau yi ñuy jaay ay millions kan ci yéen moo ko mës a gis nekkati loxoom tableau yi dañ koy jël dessiné ko rek benn waaye moo ko dessiné nga ñëw di ko jënd ñu ne la ñaata nga ne million ñu ne dafa tuuti keneen ne 2 millions ñu ne dafa tuuti keneen 3 millions kan lañ koy jaay ki ëpp lim fay tableau boobu waa ji bi mu koy dessiné fan la xool ci nature bi ah nature bi ku ko defar yow nga xool ko waaru woo nga xool tableau bi waaru buy leen ma rek xool nga nature baa ngi nii ne fang waaru woo waa ji dessiné la ko nga waaru du ngeen jommi xoola yàlla rek bi muy wax mbirum picc awalam yara ila tayri fawqahum safatin wa yaqbidna maa yumsikuhunna xanaa gisu leen picc day naaw tiim leen naaw dem ba ci kaw ba ngay séen au lieu que muy lem di lemmi waaye day tàllal laaf yi ne tacc taxaw naan nii dootu ko lem sax nii lay def yàlla nee na foofu mu nekk maa yumsikuhunna illa arrahman kenn téyewu ko ku dul yàlla doo daanuwul loolu doyul kéemtaan wa in yaraw kullal aaya laa yuminuuna biha ah kan moo defar picc xëy na avion bi dañ naan def am ay moteur dañ ko sol kérosène ay nit ñoo fa nekk ñoo koy contrôler picc mi nag yaram bi yàpp la yaram bi yàpp la yàpp ak ay dunq amul moteur ah lu sax daanu wut mos naa seetaan benn documentaire benn picc buy rëbb egg la yaakaar naa mooy borom beg bi picc bi dafa doon rëbb mu gis mbonaat bi mu ñëwee ne day jàpp mbonaat bi mbonaat bi daal di lemu xam nga du ko mën a lekk picc mi dafa dafa képp mbonaat mi naaw naaw lu tolloog deux kilomètres ndeke xam ngeen picc mi fu mu jëm ci montagne yi xeer yi bi mu ñëwee bu tiim montagne yi rek mu jëm asamaan direct rek mu dem drrr mu naaw ba écran bi gisatu ko mu bàyyi mbonaat bi ba pare topp ko nag mu naan bi egg ci xeer yi ne tas këll bi ubbeeku mbonaat bi tasaaroo mu toog di lekk keroog damaa jommi xoolal xel moomu kan moo ko jox picc mi ne ko lii nii lañ koy reyee lii boo ko bëggee lekk nii ngay def pourtant doomu aadama mënoon na jàpp mbonaat moom du ko mën a def loolu waaye xoolal kii ni mu utilisé parce que yàlla moo ko wërsëgal yàlla moo ne wa ma min dabbatin fil ard tey foog mu lekk fon foog mu lekk te su koy lekk lii lay def parce que yàlla moo ko def kon sunu borom subhanahu wa taala du hasard muy jox aaya yi rek pour ñuy dem déedéet dafa am lu mu ci wax suñu borom bu ñu indeelee aaya mooy pour ñu gëm waaye ñii nag waleen yàlla indilee mboolem aaya yi yàlla mu ne gëmuñu mu ne hatta iza jaauka duñ yem rek ci weddi aaya yi waaye sax dañuy dikk ci yow yenn saa yi waaw yu jaadilu naka ñuy dàgg sante ga nga naan leen yàlla ñu naan leen ku yàlla nga nekk bind asamaan ñu ne la non non non asamaan fii lañ ko fekk amuñu benn preuve bu ñuy wan ne bon yàlla moo ko defaroo nga ne suuf ñu ne non suuf lii ah ndeysaan nga wax yow mu ne la man sama papa ak sama yaay ñoo ma jur am benn kii sama papa moo tax sama yaay ah ah moo tax ma judd moo tax ma ñëw gisuma foofu yàlla gisuma foofu bi dañuy ñëw ci yonent bi sallam di daggasanteeg moom bu yonent bi ne nii la ñu teg tànk waaw loolu la nit ñi def tey daggasante ci diina yàlla ji waaw boo nee jullit ñeenti jabar la war a am ñu ne non non non non non yàlla waxul loolu yàlla waxul loolu boo nee dañoo war a woor ñu ne ku wax loolu boo nee dañoo war a def nangam ñu ne ku wax loolu di la daggasante waaw di daggasante waaw li waa ji doon wax keroog mu ne ay fóonaateeg raay jigéen ak ay fóon ak ay baal ak yooyu amul du bàkkaar yooyu mooy illa la mama mën nga ko defan yu ngand yi lañ la tere non Sénégal Sénégal Sénégal duñ gaaw a dem ndax li ñu war a yóbbu Sénégal duñ gaaw a dem ndax oto yi leen war a yóbbu oto yi dañoo paan ndax duñ dem oto yi dañoo paan bokk yi ndeysaan waaw waaw soo leen wone bépp kéemtaan duñu gëm te dañuy ñëw ci yow bu ñëwee lan moo leen di indi yu jaadilu naka ñuy daggasante ak yow yaqulu ñu naan yaqulu yaqulu ma ngay wax alladina kafaru gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañu in haada li nekkul illa asatirul awalin alquran bi muy wax ay léebu ak lëppoon la léebu ay léebu sàmba gelaa jéegi na waaw amoon na fi ndaanaan ba mu amee yaa ko fekk benn paa la woon ñu ne alxuraan lool la li ay léeb la rek pourtant loolu la seen professeur boobu doon wax Sankare loolu la fi waxoon alxuraan bi histoire u grec yi rek la moom la Muhammad jël traduire ko indi ko ci arab indi ko fii histoire u grec seen digganteeg yàlla lii nuroo naag grec nuroo naag loo xam ne ay nit a ko wax dana doy rek ndeysaan alquranul karim doo ci gis lenn ñu ne yonent waxu yonent bi la waaw bu fekkoon ne yonent waxu yonent bi la am nay aaya yoo xamante ne kenn du ko jàng ci alquran kon du am xul waxal kiñ na waxal kay dafa am ko ko waxloo kon dañuy dindi xul yi moo tax nga def boroom xam-xam yi doon wax ne dindi leen xul yi waaw dindi leen xul yi kenn amul droit dindi ko ndax waxu yàlla la nii la ko yàlla wàccee nii la wàcce woon ci yonent bi moo tax kenn du ko laal dañ koy bàyyee nii kenn déggoo yàlla bi mu wàcce alxuraan ci yonent ba pare da ko ne walaw taqawwala alayna baada al aqawil la axasna minhu bil yamin summa la qatana minhu l watin fama minkum min ahadin anhu hajizin maa ngi gën ci sama màggaay gis ngeen kii ma wàcce alxuraan bi ci moom su changé woon benn virgule ci alxuraan bi danaa ko ne nuus poñe ko waaye put bi laay dagg kan moom moom wax jooju seydina muhammad saa sallam la yàlla wax loolu kon keneen waxi noppi waaye doomu aadama yi ñoo alku moo tax ñuy discuter ak yonent bi ba pare nga dégg yéeféer yi yaqulu alladina kafaru yéeféer yi naan in haada lii nekkul illa lu dul asatirul awalin ay léebu mag ñu njëkk ña asatir mooy ay léeb al awwalin ñu njëkk ña waaw lii daal waaw mooy loolu paa yi doon def di léeb naan nangam nangam ah ñoom Samba Gela jéegi xam ngeen ko ay ñoom Njajan Njaay ah ay buur nangam léeb yooyu ñu ne yooyu la Muhammad jël indi ko fii def ko fii ndeysaan borom bi nee na waxum ñoom yéeféer yii ñoo la gën a xam ne lii du ay léeb ñoo la ko gën a xam ñoo la gën a xam ne alquran bi dafa ëmb tadammanat ixbaarullahi taala anhum bi annahum yanhawna annaas an il imaani binnabi waaw borom bi tabaraka wa taala nee na gaa yi ñoo la gën a xam ne ñoom xabaar yi yàlla joxe ci ñoom mooy ñoom dañuy tere nit ñi ñu ñëw ci yonent bi mooy li yàlla wax ne wahum ñoom yanhawna anhu dañuy tere nit ñi naan leen bu leen fa dem bu leen ko déglu bu leen leen wuy ji bu ngeen la bu ma la fa gis ah te li ci gën a doy waar mooy wa yanhawna anhu ndeysaan moo tax gis nga fii dëkk bi koo fi gis muy bañ sunna moo la gën a xam sunna ne dëgg la koo fi gis nag laa muy bañ sunna moo la gën a xam ne sunna dëgg la waaye lan mooy problème bi wa yubiduuna anhu waaw ñu la gën a xam yoon di waaye saa salaam waaye dañuy baare nit ñi bu ko kenn bu fa kenn dem lu contradiction la xam giñ ko xam xam nañ ne dëgg-dëgg du caaxaan xam nañ ne dëgg-dëgg du fokat xam nañ ne dëgg-dëgg yàllaa ko yónni waaye lan mooy problème mais dañoo iñaan waaw dañoo bon moo tax borom bi tabaraka wa taala melal leen yasifum llahu taala biha wa hiya al bu'du an il xaq wal xayr borom bi ndi leen melal ne ñi dañoo sori dëgg ak yiw waaw yemuñ ci sori dëgg gi ak yiw gi waaye wa amara naas bil bu'di anhuma ñu ne nit ñi nañu sori ñaar yooyu nañu sori dëgg na nit ñi sori yiw wa nahyuhum an qurbihima ñuy tere nit ñi ñu jege dëgg googu ñaari dëgg ñaari ñaari yooyu te mooy dëgg gi ak ak ak yiw bi ñu ne bu leen ko jël waaw allahu akbar sunu borom subhanahu wa taala mu ne waaye na nga yëg ne wa in yuhlikuuna alaguñu illaa ludul anfusahum seen bopp wa ma yash'uruuna te yëguñu ne seen bopp la ñuy alag gis nga dëgg fu mu nekk ñuy baare dëgg gi yemoo yow ci lànk dëgg gi rek mais nga koy baare di ko ñag di ci dàq nit ñi yow miy def loolu sunu borom nee na na nga yëg ne alagoo lu dul sa bopp tey li mooy li am xam ngeen la moo tax jullit yi mënuñoo mënuñoo ñëw ci dëgg ndax koj nañ nit ñi taaralal leen ay mbir capp-cappal ko xoolal yenn saa yi nga romb ay nit ñu sol ay yére yu weex tàll jigéen ñëpp muuru ñuy nàngam ndeysaan fekk ci réer lañ nekk léegi xoolal ñooñu ni ñu leen baaree baare bi ñu leen baaree noonu moo tax duñ ñëw ci sunna mukk parce que jàpp nañ ne ñu ngi ci dëgg waaw jàpp nañ ne ñu ngi ci dëgg da ngay gis kenn koo xam ne dafa xeesal xonk cur meesu sol lu bon nangam ak nangam julli jot ñu daal di koy sànni benn kol rek comme li ma waa ji doon wax dégg naa sax benn borom xam-xam moo ko doon wax benn kilifa diine mu ne bàyyi leen góor ñi ñu takk ay gëld jigéen ñi dangal waaye bu ñu génn ci tarixa bi rek waaw góor ñi mën nañu takk ay gëld jigéen ñi mën nañoo sol ay tubéy dangal waaye daal tarixa bi moom buñ ci génn waaw bu nit génnul ci tarixa te génn ci lislaam tarixa bi ban njëriñ la amati mi ngi mel ni ku yéeg ba ci kaw garab toog ci kaw garab gi ci branche yor riis di dagg branche bi yaa ngi toog ci côté bi di dagg branche bi koy nax sa nopp moo tax jaami yàlla yi dañ leen war a wax nan leen jaamu yàlla wan leen diine fexe ba ñag leen bu ñu génn diine semaine bi dégg naa benn maire buy jooy ci rajo bi ne doomam dañ kaa génn ci islam waaw beneen doom ji dafa feebaroon am fu ko yaayam yóbboon muy faju ji ñooy ñoo génne doom ji ci lislaam gis nga tey xam nga loolu kenn du ko kaas bu fekkoon ne tey da ngaa jël doomu jàmbur bu doy naan sàngara di tox di njaaloo di def yu bon nga fexe ba indi ko ci sunna ñu ne da koo dévier da koo terroriser wala loolu la ñu wax nga gis léegi ñu ñu ngàbb la ndeysaan am na sama benn boy Pape Cheikh Silla xam ngeen ko journaliste bi mu nekkee Limaamu Laay am na benn doomu prof bu mu muuroon police la ko waa ji yóbbu police waaw police géejuwaay bii lañ ko yóbbu waaw prof bi ne dafa terroriser sama doom mu ngi nii gis nga nu mu ko def def ko ndax nangam nangam ak nangam wu yuuxu ba sonn ndeysaan ñu jox ko waa ji ñu jox ko doom mu ñibbi commissaire bi mu ne pap ah li ngeen nekk mooy dëgg de parce que man sama jabar sax lii lay def dama nga ñibbi rek te ngeen muñ waaye nag ngeen moytu pull fuute yi ndax ñooñ ñoo leen di dugal ci islam day nekk diina pour la futa wala diina arab looloo metti Sénégal quoi boo waxee ñu ne diina arab ñun dañoo yor sunu diine ñun sunu maam yi luñ ñu indil sunu maam yi ban diine lañ am sunu maam yi ban diine lañ am lan kan moo leen indil diine boobu diine benn la de diine du ñaar arab amul diine nit ku ñuul amul diine inna diine inda allah al islam waaw te lu nekk loon diine démb tey imam malik nee na munta nekk diine mu ngoog sunu borom nee na na nga yëg ne ñi baare nit ñi yonent bi di dàq na nga yëg ne ñooñu alaguñu lu dul seen bopp te yëguñu ko walaw tara ci xoolal te jommi ëllëg yowmal xiyaam is wuqifu bu ñu leen taxawalee nag alan naari ci safara ndeysaan buñ dee ba dekki ba yàlla dajale ñu ardul maxsara borom bi tabaraka wa taala nag nee na ñu jajale leen ñoom ñëpp nag ubbi buntu safara nag wa barazu lillahi waahidul qahaar ñu jàkkaarloog yàlla ñu ubbi buntu aljanna ubbi buntu safara ñu taxawloo gaay nag léegi ci buntu safara nag ñu raa nag walaw tara cey soo gisoon ëllëg is wuqifu bu ñu leen taxawalee ala naari ci safara fa qaalu ñu ne yaa laytana ay waay aka neexoon nu raddu nu delloonu wala nu kaddibu du ñu weddi bi ayaati rabbina sunuy aaya borom réccu am na wala amul képp ku jaamul yàlla tey suba di nga réccu mbokk yi tey jii fii nu nekk ku jaamuwul sa borom ëllëg yowmal qiyam di nga wax ñii li ñu wax di nga ne aka neexoon yaa laytana nu raddu aka neexoon tey nu delloonu fan la ñuy delloo aduna aduna amatu waaw bu leen delloo nu ngeen def ñu ne wala nu kaddibu bi ayati rabbina du nu weddi sunu aaya borom yi lan moo leen indil li mooy dañoo weddi woon démb aaya yi ñu naan leen yàlla nee na ñu naan waaye bu leen ñu sonal waay waaye gaañ xoolal waaye gérer leen quoi waa ji day wax rek bu ñu kenn fat waaye booy xoolal branché leen affaire yi na xiir na tàkk na tàng ah allahu akbar tey nag ndeysaan yow nañ yowmal xiyaam adduna jeex na gaaya gisatoo àndandoo yi gisatoo musique yi gisatoo xumb xumb yi loo fi gis mooy taxawloo nañ la ci kanamu safara fa qaalu ñu naan yaa laytana ak a neexoon nu radd nu delloonu wala nu kaddibu du ñu weddi bi ayaati rabbina sunu aaye boroomi ndeysaan ndax loolu rek la ñu ne déedéet wa nakuna min al muminina kon danañ fexe góorgóorlu ba bokk ci way gëm yi ah gis ngeen tee ñoo daw léegi mbokk yi bokk ci way gëm yi waaw bu nu àdduna jay bu ñu xumb xumb yu yóbbaale ceeb yeeg boisson yeeg pomme yeeg jaagar jaagari geeg dem ak dikk geeg yàpp yeeg yëgal ne day jeex fii rek suñ la fi tegaloon léegi boolu ginaar nga lekk ba suur nga tëdd bu fajar jotee suñ la nee loo reere woon lu muy saf xamatoo ko rees na bu yàgg jeex na kon nan jaamu yàlla borom bi nee na li wër tey mbir gaa yaa ngay rëcc waaye bal li wër tey mbir badaalahum feeñ na ci ñoom maakaanu la ñu nekkoon yux fu na di nëbb ndeysaan lañ doon nëbb tey lañ génne luñ nëbb lañ doon nëbb kéefér nëbb ay bidaa nëbb bokkaale tey nag taxaw nañ ci kanam yàlla ñu ngi buntu safara xam na ne dañuy dugg ñu naan yàlla delloonu kon danañ gëm nangam nangam yàlla nee na déedéet déedéet déedéet bal badaalahum maakaanu yux fu li ngeen nëbboon tey moo feeñ waaw ndeysaan li gaa yi di nëbb moom la yàlla génne taaye min qabl démb la ngeen nëbboon démb lànk ba ñu gëm sunna soo ne tey sunna rek am na ñoo xam ne da ngay dugg fenn rek au lieu sax nga wax da ngay dugg rek ñu commencé gaaruwaale waaw dugg rek asalaamualeykum rek nga gis ñu commencé waaw xam ngeen ne jamono yi am na xale yu fi nekk ah di ay xale yu fi nekk ana xale yu fi nekk indi fi diina bu bees ana diine bu bees ban lan mooy diine bu bees xabdu nii xanaa ki naan xabdu def nii di julli teg sa loxo sa dënn diine bu bees la kooku doo jàngul buxaari ak muslim buxaari ak muslim moo fi jiitu ki moo fi jiitu tarixa yi kon naka lay nekkee diine bu bees moom la yonent bi indi yonent bi musul julli wàcce loxo kon naka la ñuy waxee ne loolu diine bu bees la muuraay léeg-léeg ñu ne muuraay diiney arab naaray diine na waaw alquran moo ko tudd mi ngi nii ab aaya la suratul ahzab verset 59 yàlla mu ne jigéen dafa war a muur waa Sénégal naan de non loolu moom dafa bees quoi dégg naa sax léegi ku muuru du dugg aéroport ah il paraît loolu la ñu wax léegi keroog benn xale bu jigéen woon mu ne maa ngi nii di photo carte d'identité mais dañ ne du ma mu du ma du naa di ma ne ko bul na la jaral nga bañ am carte d'identité man de samay soxna bu ñu demee kii ñu ne leen da ngeen jaral na dinaa leen ne bàyyi leen carte d'identité yi sànni leen ko fële ci xaj moom.
commissaire bi ko wax rek mais ci résolution état bi tamit kuy ut carte d'identité fekkee jigéen na am kolo nañ ko bàyyi kolo.
waaw gis nga comme état bi nee na ku am carte kuy carte d'identité nañ la bàyyi ak sa kol waaye da nga gis ay cumbur yoo xam ne ñoom li ñu bañ seen bopp li ñu wane loolu yàlla doon wax léegi li nekk seen xol yi moom lañ bëgg a génne ndax bañ giñ bañ jigéen buy muuru. waaw yenn saa yi sax ñu ne la da ngay joxe loxo wala kenn du la fi kii da ngay lan la du ngeen nuyu nit ñi da ngeen a gën nit ñi da ngeen ñuy nuyu waaw boo demee hôpital ñu ne ah da ngaa ëmb ah dara da ngay muuru waaw di leen wax yooyu lañ leen di wax ah ndeke ndeke yéen di ngeen kii ah ah ah xanaa ku am sa jëkkër am sa jabar doo kii comme nit ñi dañuy kii ah waaw mu ngoog moo tax bu yeboo ngeen jàng bu yeboo ngeen riposte bu yeboo ngeen taxaw ku leen ne benn ngeen ni ko fukk ça le problème diine bi diine islaam la waaw bul tooñ bul yaax bul saaga kenn waaye nekk ci sa dëgg yent bi nee na addu aleyha bin nawajis màtt leen ko fii caaxaan yi bu mu leen yóbbaale nit day am fulla ci diineem da nga koy matt c'est parce que nit ñi nanguwuñ jaamu yàlla soo leen toppee dañ la yóbbu ci koy féer safara nga jëm mu ngi nii keroog bañ demee taxaw ci buntu safara lan lañ wax dañu commencé di weddi naan yàlla delloo ñu ñu gëm c'est trop tard lan la yàlla wax wa bada lahum ma kaanu yuxfuuna min qabl lañ doon nëbb démb ñu ngi nii tey di ko génne yàlla xoolal sunu borom moo leen xam mu ne walaw ruddu la aadu limanuhu an wallahi su ma leen delloo woon it la ma leen tere woon danañ ko defaat allahu akbar wala ruddu su ma leen delloo woon buñ demoon ba àllaaxira fekk dañoo lànkoon bañ a jaamu yàlla ñu yegg si ñu ne yàlla baal ñu yàlla baal ñu rek ñu daw wallahi ci suñ demee ay yàlla nee na bu ma leen wàcce waatee danañ ko ne au revoir xaaral ñu noos tuuti quoi xaaral ñu waaw allahu akbar yàlla nee na wala ruddu su ma leen delloo woon la aadu danañ dellu limaanuhu anhu ca la ma leen doon tere maa ngi lay yëgal ne wa innahum ñoom ñii la kaasibuna ay fenkat lañ gëmuñu tus ay fenkat lañ bu ma leen indee adduna it danañ delloo ci caaxaane ca baaree la ñuy delluwaat ak musique baag njaaloo baag nangam ak nangam lu tax parce que ay fenkat lañ mbokk yi ngeen jàpp ne ku yàlla ne fenkat nga wa innahum ñii la kaasibun yàlla mu ne ñii ay kàcckat lañ ay fenkat lañ ngeen defee ne loolu du dëgg wallahi li yàlla wax mooy dëgg sunu borom nee na wa qaalu ñu ne in hiya li nekkul illaa xayaatuna dunya lu dul dañuy dund rek dund aduna wa ma nahnu bi mabusin ñun kenn duñu dekkil loolu moo tax gëmuñu dëgg gis nga lan lañ wax dund aduna kese la buñ deewee duñ dekki loolu ñaata yoon ngeen ko fi dégg ah léegi sax nit ñi waxdatul wujub boobu lañ gëm nañ naan al aj- aduna bii ñu nekk fii lañu yàlla di bàyyi ñi baax ñi la yàlla di dekkilaat ñu bon ñi yàlla dekkil seeni ru def ko ci ay mbaam xuux ak ay mbaam sëf te loolu pas-pasu témoin de Jéhovah la témoin de Jéhovah yi ñoo gëm ne àjjana fii ci kaw suuf la ñi baax ñi la yàlla di dekkilaat ñu dund ñu bon ñi yàlla def leen ay mbaam xuux ak ay xaj ak ay ginaar ak ay fas ak béy Hmm? loolu ngay dégg fii tey jii ñenn am doom par exemple benn màgget dee ci kër gi ginnaaw suba benn xale juddu ñu ne maire bi moo ñëwaat am na ñu ko fi gëm yenn saa yi sax ñu tuddewaat ko ko am na nit ñu ko gëm fii ci biir dëkk bi du jeex waaw moo be yaa noo be artata o de ko goggo kaari kan ko arti Hmm. kii paa bi demoon moo delsi kii maam diw la loolu musiba la de yal nañ ci yàlla musal wa qaalu ñu ne in hiya li nekkul illaa lu dul xayaatuna dunya sunu dund aduna rek wa ma nahnu bi mabuusin ñun bu nu deewee kenn du nu dekkil gis nga doomu aadama bu gëmul dekki rek dundam yàqu na dafa bokk ci liy defar dund mooy al imaanu bil baas al imaanu bil yawmil ax- axir gëm alaaxira alaaxira lu fa nekk mooy dekk gis nga même ci ponki ngëm yi ngëm dafaa nekk benn tomb suñ gëmul alaaxira gëm ne danañ dee gëm ne buñ dee danañ dékki suñ dara du jub dal moo tax nga dégg tëdd fajar dégg ñu ne asalaatu xayru minan nawm mi nga jóg parce que da ngaa gëm ne di nga dee da ngaa gëm ne boo dee yàlla dina la laaj lu taxoon julli jiwoo li tax nangam li tax nangam yëpp lu tax parce que da ngaa gëm ne di nga dee boo dee di nga dekki bu la yàlla dekkilee dina la fay lu baax li nga doon def wala lu bon li nga doon def kon mbokk yi loolu mooy darsa tey ñoo ngi jégalu njuum tey asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.